wa taabii taabiin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yowmi ddin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi soppi yi xarit yi seen fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam moo leen tànnal seen émission bi ñuy wax bi ngeen xam ci ma bëgg rasul sallallahu alayhi wa sallam ci seen site en ligne fkr com ngeen ànd kook seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool lool lool lool muy Abdoulahi Mbaye imam fondation Kër Rasoul ñu ànd ko ak sunu caméraman bu baax bii ndeysaan di Omar Rasoul fonk liggéeyam lool tabaarakallaahu kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaar di leen ndokkeel xam ngeen ne ñu ngi ci biir liggéey bu yiw bu sell bii nga xam ne borom bi moo ko yëkkati teg ko ci sunu loos farataal ñu ko muy shahru ramadaan al mubarak muy weeru koor wu tedd wu màgg wii nga xam ne eh, fondation bi lépp luy yiw lépp lépp luy tedd nga lépp luy mbaax dégg nga Mouhamad Abdallah dégg nga taxaw na temm pour andi ko ci biir fondation bi bokk ko ak jaami yàlla yépp te loolu mooy bëgg-bëggam yitteem yépp bëgg-bëggam yépp mooy fondation bi gis boppam ci xeet bi xeet bi it gis seen bopp ci fondation bi lépp nag di ummatu rasulillahi sallallahu alayhi lépp di teraanga sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi ci liggéey bu sell bu yiw bu tedd bi di weeru koor di weeru alquranul karim kon ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax ñu gën a nag dolli góorgóorlu e, ñu fonk lool nag li nga xam ne mooy buuñaa yi ci am moom li ñuy wax naafila naafila naafila mooy ziyaada e, te te ñi tapp garaat ñépp ci xadratu yi ci jaami yàlla yi ñi ci tapp garaat ñëpp ñi ngi ko tappee ci naafila naafila nag du rukkoog sujjoot rek naafila du julli ñaar ràkk ñeenti ràkk juróom benn ràkk juróom ñetti ràkk fukki ràkk déedéet fukki ràkk ak ñaar déet loolu dong du naafila naafila bokk na ci dégg nga eh, tabarakallahu ngay làmbu sa poos di joxe kooku xeetu naafila la bokkul ak farata bi naafila ñi am yàlla ñépp ñi tapp garaat ñi ngi ko tappee ci naafila Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ne na man lépp lu ma am maa ngi ko amee ci lusoomu maa laa yalzam mooy taqoo taqoo lu ma warul lusoomu maa laa yalzam mooy taqoo lu ma warul su ko defee kon eh, tabaarakallahu loolu di lu am solo kon bokk yi ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax eh, tabaarakallahu naafila nag dégg nga foor na màgg na tedd nga tedd na lool waaye nag mi ngi gën a amee doole nag ci biir ramadan ci biir weeru koor gis nga ñaar rakk yi nga daan naafe la ci bitti weeru koor boo duggee biir weeru koor ñaar rakk yi ngay naafilaa ci biir weeru koor mooy ëpp doole ah <coughs> xoolal teraanga bi nga daan def ci bitti weeru koor dimbalante bi daan def wormaalante bi feeñalante lu baax nëbbalante lu ban ci bitti weeru koor bu weeru koor dikki day gën a fort day gën a fort gën a màgg gën a tedd su ko defee kon loolu lu mat a sóoraale la lu mat a bàyyi xel la kon bu weer wi dikkee da ngay parfito Cheikh El Hadj Ibrahima Sakho radiyallahu taala da daan wax naan nañu baril feem yi nañu baril feem yi rawatina nag bu weeru koor dikkee feemu mbaax bu ne dugg ca feemu dimbalante bu ne dugg ca xoolal feemu cofeel bu ne dugg ci xoolal dafa am ku ñuy wax Bushra al Aafi Bushra al Aafi ku baax ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa Bushra dafa gént gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Bushra al Aafi dafa gént gis yonent bi yonent bi ne ko yaa Bushra mu ne ko labbayka yaa rasulallah mu ne ko atadri bi ma rafa allahu qadraka ala aqranik yaa Bushra mu ne ko laa allahu wa rasuluhu aalam mu ne ko Bouchra est-ce que xam nga li nga tegoo ci sa kaw maas gi li nga kawee ñi nga jamonoonteel ñépp ndax xam nga lu tax mu ne ko xaw ma ko mu ne ko juróomi yëf a tax juróom yëf ittibaaxuka li sunnati wa wa xidmatuka li saalixiin muy ñaar wa nasihatuka li ixwaanik muy ñett wa mahabatuka li ahli bayti muy ñeent wa mahabbatuka li li ashaabi muy juróom mu ne ko juróom yi juróomi poñ yi kum daje ci yow <clears throat> képp ku ko manqué la yaa teg tànk mu ne ko nag sa maas gi nga toll yaa ci teg tànk te yaa leen tegee tànk ci juróom yi busra yeewu busra la afi yeewu ah lii de tuutiwul yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko Busra xam nga lu tax yàlla yëkkati sa daraja ci kaw sa maas gi mu ne ko déedéet xaw ma ko yaa rasulullah yow yaa xam loolu mu ne ko dëgg teg gi nga teg sa tànk ci sunna sama sunna si dégg lu baax teg tànk ci sunna di jëfandikoo sunna dégg nga tabaarakallaahu ci li yonent bi santaane nga loo ji mën nga def ca lim tere loo mën nga bàyyi ko benn mu ne ko ak xidmatuka li saalihin liggéey gi ngay liggéeyal ñu yiw ñu baax ñu sell ñi di leen teral mu ne ko ñaar mu ne ko dégg nga ak nasihaatuka li ixwaanik laabire gi ngay laabire sa bokki bopp yi bokkam yi daf leen di laabire moom bu saral afi di laabire ay mbokkam di leen waxal yiw di leen waxal mbaax di leen jàppale ci seen i yëngatu ànd ak ñoom mu ne ko bi ci des ak nag mahabbatuka li li ahli bayt yi déggal ahlu bayt rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, bëgg gi leen bëgg yonent bi na ko ak bi ci des nag mooy mahabbatuka li ashaab yi foofu nag am na tuuti taxaw seetlu mbokk yi boo bëgg ahlu bayti rasul sallallahu alayhi wa ba noppi nag kenn ci saxaaba yi nga xaw ko suufeel sa bëgg sa bëgg sa ahlu bayti rasul day des day des na nga bëgg ahlu bayti rasulillahi sallallahu alayhi lool lool lool waaye na bëgg it asaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lool lool lool lool xoolal ayaa xaadimal muxtaari laa tansa sahbahu Cheikh al Xadim loolu la wax dafa wax ne yow miy liggéeyal Seydina Mohamed mun naa mën a bul fàtte sahabaam yi dégg nga ko de bul fàtte sahabaam yi ah booy tagg rasulaay te ci saaba yi day mel ni fas amul genn waaw su ko defee kon sahaba yi dañ leen ci bo nañ ci bàyyi xel bu baax léeg-léeg nga gis nag ku ne damaa bëgg alu bayti rasul ba noppi tegul saxaaba yi fenn loolu musiba la mbaa muy dal ci kaw benn saxaaba loolu musiba la lool caat la na ko moytu bu baax booleel ñëpp bëgg déggoo li borom bi wax subhaanahu wa taala ci suuratu baqara ca fa mi teere ca amana rasul xam nga lu fi borom bi wax bi mi tagg ñi ànd ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa na amana gëm na da rasul amana rasul bi maamte li mu ra wal mu'minuun wal mu'minuun kullun amana billaahi waaye xam nga lu ca ca biir lu mu wax dafa wax ne wax leen na laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli foofu laa ci soxla laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli ñun du ñu teqale kenn kenn kenn kenn kenn ci asaabu rasulillah ci ci al anbiya wal mursaloon ñëpp la ñu boole fonk gis nga fi mu nekk nii <coughs> su ñu bëggee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ko wóolu ko ànd ak moom te gëmuñ Seydina Isa sunu gëm Seydina Mohamed du ñuy jariñ dara bu ñu gëmee Seydina Mohamed gëm Seydina Isa wóolu leen ànd ak ñoom te gëmuñ Seydina Moussa du jariñ dara wax leen ne laa nu farriqu na ahadin min rusuli ñun duñu teqale kenn kenn naka noonu yi tamit ñu ñi ci biir xeet bi ànd ak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa euh, yàlla na jaadu rafet ñu fonk ñëpp màggal ñëpp wormaal ñëpp jox ñëpp seen cër ñun daal xam nga lu jaadu mooy laa nu farriqu bayna ahadin min ahibai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la nu farriqu bayna ahadin min abnaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laa nu farriqu bayna ahadin min ummati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al ulama wal wal wa saalihin wal aima dégg nga wal ubbaad wa zuhaad ñoom ñëpp dañuy jël buumu cofeel gi takkaleen ci ñoom ñëpp sukk ci kanam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa bañ a teqalee kenn ak kenn xam nga lu tax waxu xaala tujaari an laa yu faaqiroo xubay la rabaax yi si daaj maali na na yàlla na jaadu rafet ci kiy commerce dégg nga balay def dara wala muy wax dara wala muy tiitur na bàyyi bañ réglé ko gannaaw nag dañuy liggéey nag te war a jébbal liggéey bi ci kanam borom bi subhanahu wa taala buñ jéem a seppi kenn baa ñuy bedd kenn nañ def lim wax nañ def lim wax kon nag weer waa ngoog di weeru yiw di weeru tedd nga di weeru wut yiw bu ñëwee nag nañ buub ndax yëpp yiw bi day sotteeku day sotteeku du jeex côté bu nekk lay sotteeku su ko defee nag luñ ci mën ci yiw rek ñu def ko dégg nga eh, tabarakalaw te gën a dolli góorgóorlu te dolli suñu sellal dégg nga ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp yéen i ngaa noon seen soppe Abdoulaye Mbaye tabarakallahu imam fondation Kër ànd ak sunu caméraman bu daax bi Omar Rasoul ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.